آه. بسم الله الرحمن الرحيم يدم شي بندوب خليل ببلاغي خمغا بوكنا شي لين وخون ديم بو شي نوخو مي ليغا خامتاني دوكو ياق او بمتولد منه او بقراره كملح يي nga xamne dañ newon du yaq ndox ci lolou lañu wey ba او بمطروح ولو قصدا من تراب او ملح والارجح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به ولا على السلب به إن صنع تردد لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط وبخار مستكى من نيو باتاي دي مبالغه سي ليغا خامتاني دو ياق ندوخ بالاغي نينا او بمطروح ندوخ مي دو ياق دون تاسخ ليكو سوبي بمطروح لا لونتي سوتي waaye nag luñ ci sotti ci li nga xam ne dafa nekk ci xeeti suuf si waxuñ nga jël sa këriñ ak jël lu neex sotti ci déedéet wala diw déedéet aw bi matruuxin ci sotti fii ci biir ndox mi bu fekkee dafa sotti ko ngir luñ ci sotti waaye nag liñ ci sotti lu bokk ci xeetu suuf suuf si la bokk lu mel ne suuf lu mel ne xorom ak yu mel noonu loolu yàq ndox mi lii bu dee bi mu ciy dem sax teyoo ko nga xam ne ngelaw lee ko ci dugal wala yu mel noonu sax motax mu ne aw bi matruuxin walaw qasdan don sax yaa ko tey waaye nag li ci sotti na nekk xeet wi muy waaj wax moy li nga xane moy ci xeeti ajza turab la lu mel ne ka turaabin aw milxin neena lolu du yàq ndox mi alal mashhur don nag nak amna ñu ci wute motax mu ne nak wal arjahu salab bil milh de nak li nak bu fekke suuf la nee nañ boo gisee mu indi misaal yi ak milh turab dafa jege suuf lol xorom it xaw koo sori tuuti nee nag wala arjaxu salabul milha bu dee xorom nag la nga sotti ko ci nee li gën a wér al arjax xam nga waxoon na ne arjaxu bu ko waxee ibnu yunus la ci junj kon nag li nga xam ne moom la ibnu yunus wax topp ci ku ñuy wax alxaabisi nee na bu fekkee xorom la da ko yàq mooy bu fekkee da nga ko ci sotti nag ca tey ko tax ñuy wax xorom boo ko sottee ci su ci ndox ca tey ko ibnu yunus ak alqaabisi nee nañ da koy yàq ndax su boobaa day mel ne aw ñam léegi rek kon kon moo tax mu ne wal arjaxu salabu bil milxi ca baatub arjaxu bu ko cheikh xalil waxee li gën a ngeen xam ne ibnu yunus la ci jublu ibnu yunus fii nag qaabisi moom moo ko fekk ci loolu kon ñoom nee nañ xorom boo ko sottee ca tay ko day koy yàq ndax su boobaa mook aw ñam rek ñooy yem bu fekkee ne jubloo ko nag moom boo ko tëjee nag moom daañ ko jegele وفي الاتفاق على السلب به ان شنع تردد جا اندي نباتو تردد خم نغا وخون نتا نجل بينو تيري با وبالتردد لتردد المتاخرين في النقل او لعرب النقل من المتقدمين تردد نك نانا ندخ دني ديبو سي نك على السلب به دي يق خرم بالملح خرم بوكو تشوتي داكو يق ان شنع بو فكي خرم صوصه دا فا نيك مصنوع نانا لول تردد نواي نانا لين سي بوروم خم خمي كوم ابن بشير نانا ندخ boroom xam-xam yi nag ak lu mën a xewit nag war na nañoo dëppoo ci ne xorom soo soosu nag su fekkee masnoo la mooy xorom soo xam ne du caage ne xorom sa jóge ca ca dex ga directement la wala gi jóge ca biir ndox ma ca géej gi déedéet waaye nag bu fekkee xorom la soo xam ne la nga xam ne jaar na ci usine yooyu nag nee na moom ñëpp a ci war a dëppoo kon boo tayee sotti ko ci kon a ci war a dëppoo mooy ci yàq yàq laab gi in bu fekkee loola dafa nekk xorom sa dafa nekk loo xam ne masnoo la taraddudun masala moomu nee na ibnu bachir nee def na ci taraddud waaye masala mi nii la deme xorom bu fekkee dangaa tay ca sotti ko ci am ci am ci ci ci biirum ndox borom nga xam ne dañ cee wute am ñu ko jégale ku mel ne ibnu qasaar ku mel ne abu muhammad am na ñu ne dagan na dara new ci mooy moom loon juñ ci bi am na ku mel ni ibnu yunus ak xaabis yi wax nañ la wax naa la ko léegi ci biir masalam téere bi ñoom dañ cee wuute daga na luñ ko ki ñuy wax baaj yi di borom xam-xam ci mutaaxirin yi nee na nañ dafa def xàjjale masala bi dane bu fekkee xorom sa masnoo la loolu dañ koy day lor baaxut ndax moo ko aw ñam ñooyam bu fekkee nag xorom su maada nii la soo xam ne cosaan la nee na loolu baax na ibnu bashir nag moo def taraddut nee na ndax baaj yi lii mu wax dafa taf dafa xàjjale dafa dox ci diggante ñaari masala yee jiitu wala baaj yi dafa wax jërëm wax ndax baaj yi dafa xajale dana ñeene baaxut dañ na ndax xorom si masnoo la ñeene baax na ndax dañ na ndax xorom si du masnoo ndax baaj yi dafa xajale ñaari wax yi wala ndax baaj yi dafa indi wax yi boppam loolu mooy taxqiiqu masala mi moom la lenn ci boroom xam-xam waaye ne almilxu in qusida tarxuhu bi ma waqaa fihi alxulfu bayna alulama qaala abu muhammadin bi annahu muxtafarun wa ibnu alqasaari misluhu والشهر بن يونس والقابسي خلافهم ففهم كن ممارسي وكن ممارسي الباجي فالمصنوع كالطعام يضر والمعدني كالتراب لا يضر وابن بشير بينهم ترددا هل هو تفصيل لما قد وجدا أم قولهم متحد مختلف هذا الذي نص عليه السلف كن مسألة لما خانتني مخوا يعطلا ميغي بغنك bëgg nag خمنتني yi nga xamante لا بمتغير معينك لا يرفع الحدث ولا حكم الخبس قم نيون اللي يرفع الحدث وحكم الخبس بالمطلق لن من دخنا مو منت رفع الحدث نخاني منش تجاب منت يكتي حكم الخبس مو منش ترخص بشو لتق موي لا بمتغير وخو من دخ مو خن دفا سوبيكو دخ مو سوبيكو نك لونو بي كولور بي طعمو بي تفكا جي اتفاقا ولا خد جي باتاي نانا ñett yooyu nag bu fekkee dafa sotti ko moom déedéet ndox moomu baaxul mënta rafon xadas man mënta rafon xadas mënta rafon xukmal xadas laa bi mutaxayirin lawnan aw taaman aw riixan kon ndox bu fekkee dafa ñett yooyu xet cafka gi wala melo yi wala ci gi dafa sotti ko ndox moom moom ta defar dara mëna ci cee jàpp mëna ci cee fóot mbubb mu sobe wala yu mel noonu waaye nag lan moo koy soppi mu ne bi maa yufaariquhu xaaliban mooy li ko soppi nag ne nekk loo xam ne day baaxoo tàggali koog moom waxuñ nag loo xam ne dafa dëkkoog moom nga xam ne du taqalikoog moom mukk comme liñ leen junjoon ci ginnaaw ni la jën wuy dund wala lu mel ne maxara maxara di mag ñi sel lañ lañ ko daan wooyee lu xaw a wert la loo xam ne day lu lu xudra ni ko ni ko borom xam yi tekkee rek xudratun taalul maa inda tuuli muksihi lu luy am ci ndox la rek ndox bu bu gaaree fenn lu yàgg wala yu noonu kon daal ala kulli ndox li ko soppi rek li ci am solo mooy na doon loo xam ne lu taqalikoog moom lay doon waxuñ ne mu soppi lu mana don mo xam min taahirin aw najisin mo xam liko ko soppi lu lab la wala lu sobewu la waye nak xam ngeen lu lab bu ko soppe ndox moomu mënees na ci nan ak yu mel non waye ken munu ci japp ken munu ci raxa sobe aw najis bu fekke sobe ko soppi nak xam ngeen ndox mu mënees ci cee laab mënees su cee naan def dara mom andil na misal ñaar yooyu ka duhnin nin lu melni diw go xam dafa jax sok ndox leg leg day am bu baax ngay japp ci setal gis mu nin lol diw gi sok mom nga xane dafa takalok mom ndox mooma diw ga bu diw gu lab la xamal na diw ga man nga cee naan man nga cee sangu ni ngir set wi ci rek waxu waxuma la sangu farata waaye kenn mënu ko sangu farata kenn mënu ci jàpp kenn mënu ci raxas sobe bu fekkee diw sobel na wala yaasu billah tuur ko aw aw bu ne dégg nga ka dux nen xaalata wa bu xaarin mustakka ni ko noonu ba tey bu fekkee li ko soppi xet la loolu day am léeg-léegi mu jege nekk ci biir cuuraay wala yu mel noonu li da ci andi misaal rek bu xaar mooy du xaar mooy saxarus mustaka mustaka xeeti façon cuuraay la def na wax mustaka nee nañ xeeti ilk la xeeti cuuraay la loo xam ne ruum la doon jóge boo xam koy dañ koy dañ koy xeeñoo alaa kulli haal bu fekkee buxaar mustaka da cee joxe misaal rek maanaam lu foor a foor lay doon loo xamante ni day dem ci xet gi comme man nga andi misaal ci yenn koloñ yi yenn cuuraay wala yu mel bu fekkee foor na loolu ba soppi ko ba tey it na nga soppi ci melokaan yooyu ñuy wax leen ba tey na xamante ni loolu dootu baax loolu nag mën nga ca joxe misaal ndax loola laab na wala sobewu na bu laabee dana laab ca mënta laabal bu sobee woo nag mënta laab mënta laabal wabillahi taala tawfiq